leen teg fa nga xam si nii mooy terrain gaal gi waaye la 14 janvier ba la 17 janvier foofa ca film la suñu la mu xamal ne film la teg nañ fa am diggante Youssou Ndour ak xam si nii moo di Thiatou Yoff suñu ñu la mu xamal ne adresse Senghor enveloppe bu ci 1 million la fa Soulay Sagne teg waaye ci dimanche bi ba tey lutte avec frappe suñu la mu xamal ne stadium Iba Mar Diop diggante armée ambulance suñu làmb ñu xamale combat boobu combat revanche la ndax ñoom ñaar jote woon nañoo daje ña ngay dajewaat ni ki dimanche ginnaaw loolu suñu ñu xamale open press ni open press ba Balla Gaye 2 da kii guy gi da koo ba ci Lac de Guiers 2 da waaye ki xam se ni moo gëm 100 pour cent Géejawaay di Alioune Seye 2 mi ngi woon ci ginnaaw ki xam se ni moo di Youssou Ndour ginnaaw loolu suñu làmb ñu xamal ne wàllum MMA bi sauvé na Malick Niang ndax cinq ans ngi ni bëréwul ci arène bi moo tax Malick Niang dem na ci li nga xam se nii mooy wàllum MMA bi ma ngay moo géet moo ko ci wetam taq ko rik bañ benn journaliste wala benn koo xam se nii da yàq mbir mi rek daal di koy jege ginnaaw loolu suñu làmm ñu xamal ne Malick Thiandoum moo yoroon li nga xam se nii moo di micro central ba ginnaaw loolu ñëw nañ ci adversaire bii di Sa Thiès suñu làmm ñu la volcan ñu xamal ne Moussa Ndoye mu ngi toog di xaar moom Sa Thiès ginnaaw loolu Modou Lo Ama Baldé suñu laa mu ñu xamal yaakaar ma ngay yàqeeku ci stade Léopold boobee ñuy xalaat ne war nañ ko faa mën yóbbu ndax stade ba commencé nañ koo xob bi di ko defar li nga xam se ni mooy renouvellement pour defaraat ko ginnaaw loolu suñu laa mu nga ñëw ci Ibrahima Diop borom Kajoor production moom mi tegoon Ndiaye Tine Baye Mandione Junior mooy xam ne am na satisfaction ci boppam dafa bi nga xam si ni réussir na ko léegi day jëm ci diggante ki nga xam si ni mooy di Mbaye Gueye Junior suñu ñu xamal mu ngay ñëw ci mbër nga xam si ni seen nekk roi des arènes daf leen a a rëcc ku ci mel ne Baboy suñu làmb mu ñu xamal ne nekk roi des arènes rëcc na ko ndax daje na fekk Yékini demoon ba wut ko ndomba daal di ñàkk xamal ne Tapha moom tante woon na ko ci diggante moom Balla Gaye perte ko waaye amaat na chance pour tante waat ko ki nga xam si nii mooy Lac de Guiers 2 suñu mu ñu xamal ne moom bu bëggee doon li nga xam si nii mooy di roi des arènes faaw mu changé li nga xam si nii moo di xar kanam ginnaaw loolu ñu sant leen gërëm leen